te Covid 19 bi waral ko muy benn sénégalaise bu am juróom fukki at ak juróom ñett ñu réalisé ko ci hôpitalu Fann président de la république gouvernement bi ak peuple bi ñu ngi jaalee famille ak njabootam bi yëpp di ñaan yàlla mu xare ko àjjana tey samedi ñeenti fan si weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test wu bés bi si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari test fukk ak ñaar ñëw nañ si positif benn bi cas importe la mooy cas bu jóge bitim réew fukk yi cas contact yu doon suivre la benn bi ndëkk mooy kaa boo xamante ne transmission communautaire la jóge mooy mënuñ ko lënkaleeg euh, benn contact wala béka ñu wax ne tey aussi juróom benni patient yu ñu hospitalisé woon wér nañ tey danañ leen génne ci kanam yeneeni patient yi nekk hôpital ñi ngi yëg tan bu ñu xaymee ba mbir mi commencé ak léegi Sénégal enregistré ne ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti cas si ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yooyu juróom-ñaar fukk ak ñaar wér nañ si tey ñaar génn nañ si àdduna kenn évacué nañ ko ci coobaree famille muy donc fi ñu nekk nii téeméer ak ñeent hôpital ñu leen ministère peuple sénégalais yëpp bonne fête d'indépendance mais di leen ñaax surtout ngeen respecté conseil yi leen jox pour que ñu mën a génn Covid 19 bi ci réew mi maa ngi remercier bu baax. ngeen réew mi wala ci bitim réew da ngeen di abonné ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne ngir mën a xam li xam ne.